amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen ñu teewlu ci 5M TV Sénégal jërë ngeen jëf. ci teewlu bi mbokk internet yu 5M TV Sénégal mbokk yi mu mel ni lu jëm ci fukk ak ñetteelu législature bi dafay mel ni luy waaj jeex ndax député yi kon ñoo ngi leen di woo ngir nag ñu indi seen woto indi itam rek seen carte d'identité foofe ci assemblée nationale communiqué bi loolee la xëy fësal ci aljuma ji kon lay doon ndekki suba eh, ci bu huit heures jotee nag njiitu garage bu assemblée nationale moom sax daal dinay kon fësal mbir mi ndax ci février atum 2013 lañ doon may ay woto nag eh, yoo xam ni député yi lañ ko doon jox njiitu réew mi fi nekkoon moo ko defoon moom mu mel ni kon rek fàtte woon na kon jëm rek ci li nga xam ni moom moo soxal nag lu ëpp ci majorité sénégalais yi ñu wax itam rek beneen mbir ñeel nag mama Aïcha Ñongu xaritam bi nga xam ni moom mooy àggee moom nag ñu jàppoon ni kon loxoom dafa laale ci mbir mi procureur jël na dogal kon daal koy bàyyi eh, ginnaaw rek lañu ko toppee woon ginnaaw itam rek laaj yi nga xam ne defoon nañu ko ci ñi nga xam ni kon jàpp nañu fekkee nañu mbir mi enquêteurs yi nag ñoom fi ñu nekk nii ginnaaw la am kon doyagul tax nañu bàyyi xale bu jigéen bi nga xam ni am na lu toll ci fukki ak juróom benn di xaritu maman Aïcha moom te ñu woon ko en garde à vue la ko waraloon bokk na ci ñu jàppoon ni kon loxoom laale na ci mbir mi ginnaaw enquête yi ñu euh, doon wëyal ak résultat yi ñu amoon waaye mu mel ni lu tukkee ci examen bi nga xam ni def nañu ko itam déclaration bi nga xam ni moom procureur teg na ko mu ni jàpp nañ ni daal kon la ñu am matagul ni moom mën nañ ko téye tax nag ñu daal di koy bàyyi mbir mi nag moom ña nga koy topp ñu ni kon investigation yi ci anam ya mu waree xool itam lan moo waral kon mama Aïcha Ndong ñu daal di koy faat ndax boobu léegi autopsie bi lu leer indiwul itam leen loo xam ne mën nañ cee sukk sukkandiku ba tax na waajuram yi itam ñoom jox nañu leen a jot néew bi ngir rek ñu daal di koy denc waaye la bëgg moo yoon def liggéeyam ci anam ya mu waree topp mbir mi ba mu leer nañ loole lañu sàkku ndax lépp rek ma nga tàmbalee ci nag bi nga xamee ni. ay Aïcha moom euh, jot na rek daal di réer te jamono joojee ñu ni kon ca boutique ba la demoon doon rek wàññeeku ànd ak xaritam boobee nag di àggee ginnaaw googee lañu gis ni nag moom néewam fekk nañu ko rek ci benn kanaal